ci kaw asamaan la jóge di buum bu dëgër jóge ci kaw asamaan ci borom bi subhaanahu wa taala waaye nag di wax joo xam ne nii wax ju diis la mu wàcce ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye mu nekk amaana mu nekk kóolute ci umma muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne yonente waxoon na ni bàyyi naa leen ci sama ginnaaw ñaari mbir yoo xam ne nii su ngeen ci jàppee du ngeen sànku mukk ñu laaj ko lan mu di téere yàlla bi ak sama sunna kon bokk na ci li ñu mën a téye muy amaana boo xam ne bàyyil nañu ko fi muy téere bu téere bu tedd bi di alquranul karim yi moo tax sunu boroom di wax ni ci téere bu tedd bi ci alquran ci suratul bahar ay 185 euh, sunu borom di wax ni chahru ramadanu alladi undila fihi alquran hudan linnas wa bayinat min alhuda walfurqan fa man shahida minkum chahra falyasum ba laa ja jeex yàlla di wax ci aaya ji ni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 wa ablagul mawida wa ahsanal xisas kitaabullah kon dañ ciy déggee ni wax ji gën ci waxi mooy téereb yàlla bi kon amul dara loo xam ne nii moo gën a féete wax ci wax ju tedd lu dul téereb yàlla bi mooy alquran moo tax yàlla wax ci alquran ni yéen salaay salaam ni ko sa nulqi alayka xawlan ñun yàlla wàcce nañ ci yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yow muhammad wax joo xam ne nii wax ju diis sa muy alquran ndax alquran wax ju diis sa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 bi ngay ñëwé fi di nok bi ñuy tok di ndogu am na bi ñu bàyyi won ci li nga xamni ni moy table bi laaj naa ko sama borom kër nak mo ni gisuko ta man di ñu la laaj imam dal ni leen imam ni ndawsi ana téré alquran bi nekkon fi ndawsi dal ni ko téré alquran bi mu ngi ni mu ni ko jottali mako imam jël téré alquran bi ubbi xet bu ñëk mu ngi suratul baqara bi mu ko ubbe mu gis xaaliss bi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 Eh, weeru màgg wi di nuyu di ziar ñi nga xam ne ñëpp ñoo àndoon yéen àndoon ak ñun ci seen eh, émission jotaayu eh, seen émission wu ngëneelu weeru koor macha allah ñu ànd ceeg ki nga xam ni mooy paparaan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 بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر